asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi téléspectateur Equivox TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar gumis nag tey ni ma toogee damaa sukk lii lañ naan sukk xam nga raad xaw ma sukk waaw lii moom boo dee gu nekk kaw yàgga lekk laax xam nga dëkk ba bu ñuy lekk loolu dañu naan sukkal nii ngay sukkee ci suuf amul teg ay tabil ki baax ma ñëw nag way ah benn atelier boo xam ne nii atelier Serigne fàllu la bu la neexee muy Ndeye Gueye création kër Serigne Fallou création noo ko mën a baax na kii nga xam ne moom mooy Ndeye Gueye ngeen xam ko bu baax a baax kenn dootu ko présenté defe naa lii moo ko ubbi muy loo xam ne ah fekk nañ ko mu nekk ci ay tëyëram maanaam daal sànc macha allah yal na ko yàlla yegaleeg jàmm ñu bett ko nag que nii nga ko ngeen ko gisee nga xam ne dama koo bett tey <laughs> waaw maa lay ziar sama jigéen. waaw ah, maa bett moom wax fa dëgg yàlla da maa bett waaye maa ngi nuyu sénégalais yëpp ah di nuyu ñëpp di la nuyu yow di baalu sénégalais yëpp àq di wax Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg di wax sëñ Mountakha yàlla na fi yàgg lool te wér. waaw di jaale waa waa Louga yëpp ah, gouverneur Diome ah di ko jaale njabootam di ko jaale soxnaam di ko jaale ñëpp di wax eh, yàlla na suufu Touba oyof ci kawam di nuyu sénégalais yëpp di nuyu sama borom kër di nuyu sama papa di nuyu sama ñi nga xamante ni ñoom laa nekkal fii ñëpp waaw su ma suñ ma jox loon autorisation sax nag duma ko def ndax ma ne woon du ma wax tànk parewu ma waaw mais yow xaw ma nu ma lay def yow moom sama sama lakkal nga daal waaw am na solo kookoy Ndeye Gueye c'est que fi ma tey dama la fekk ci beneen facette parce que Ndeye Gueye xam nañ ko ci facette yu bëri macha allah mais dañ la fekk tey ci facette u création couture ak yooyu lii kañ la ñëw ci yow kañ nga ko doon préparé ak nu mu demee. waaw lii nag euh, sama papa moom ma njëkk a wax ni ma ubbil atelier tailleur yàgg na yaa trois ans ci ginnaaw ma ko man damaa mën a ñëw mu ne ma ubbil rek yàlla baax na léppay baax ndeysaan yàlla dogal. ci tabaski bi ñu doon def opération ñu jaal ay ñu jaay ay xar bi jaayee ñu seddoo mais moom dafa jël ci moitié am jox ma dama demal joxe avance nga jënd ay machine mu joxe avance jënd ay machine donc euh, yàlla dogal samay nit jàpp ci ku ci mel ni sama DG Mame Boy Diao euh, ku ci mel ni sama yaay Koddu Gueye yaay Aïcha ak yaay Absa ñoom ñoo nekk États-Unis ñoo may jox ci si xew yi may jaay Euh, ku ci mel ni grand papa Ndiaye Singapour ku ci mel ni Mati chéri Iliman Lam waaw Mati Mati Lam chéri Iliman Lam na ci lool Mati chéri Iliman bu dama koy wax ci kaw bu baax jàpp na ci atelier bi lool ak Iliman Lam beneen bi ci des keneen ki mooy Cheikh Ba Messi waaw waaw man daal man daal xaw ma lan lay wax daal sénégalais yi xawma la laay wax ndaxte nag euh, euh, def dara ñëpp jàppale la ci dafa neex waaw mais luy njëg njaag rek sama borom kër mooy njaag waaw. parce su ma la déggee concept daa mel ni si papa la jóge ndax yéen ñaar bokk ngeen liggéey ci lu war jëm ci wàllum euh, opération tabaski ku nekk am ca loo ca am ku ne jël la nga am mu jël moom la mu yor boole laak li nga yor ne la defal lii kon daa mel ni kon borom kër bi daa mel ni moom seetaanu la daa mel ni de. fekk avant boobu sax après bi ma joxee damaa jënd ay machine jaar marché nga jënd tissu yi. tissu yi nekk foofu noonu moom lañ ñëw ay robu ay robu été waaw moom lañ njëkk a ñëw donc bay ñu ngi ci travaux sax pareeguñu <sighs> sant yàlla daal. mu mel ni kon ndey su ma ko déggee muy wax ni tey euh, maanaam ah macha allah dafa bëgg dugg ci beneen business boo xam ne tey bokkul ak sax lañ ko xamee woon. waaw ndax instant bi euh, c'est le seul travail qui paye parce que toog rek tamit toog rek yorul yorul dara quoi aussi tamit tëdd yeewu yorul dara donc. mën nga gérer sa sëy mais mën nga liggéey tamit aussi comme démb papa dañuy waxtaan ba ay 5 heures du matin 5 heures matin bu may conseillé boo boo boo liggéeyee cinquante mille jëlal cinq mille wala 30 mille nga doo dugal ci sa compte comprendre nga boo liggéeyee jëlal defaral kii maanaam kii nu mu tuddati euh, sa benn condaane ngay def sa 3000 wala sa cinq 5000 su weer dee di nga fay te sa sa sa sa location place te doo ko yëg E, yu bari ci moom lay jóge muy ñëw ci man pourtant maa ko mag de mais yi may xelal man nekkul woon sama xel waa am solo loolu la ñuy doyee boroom kër xel na nañ puso bu réer la ci dëkk rek gone da koy form ak for ko macha euh, tey bu boo estimé woon atelier bi actuellement nii financièrement li nga ci dépensé gu ñaata la ci xaalis. noo non mënuguma wax parce que boo xoolee xool su ma juumul li ko teree yegg set bariwul bariwul de. set million bariwul de. parce que décor bi rek déjà dafa cher machine bi rek dafa cher tissu rek dafa cher. bagage yi ngay jënd mu jóge mu jóge extérieur ñu nekk Turquie bagage yi may jaay ñu jóge xam nga damay jaay tamit près à donc bagage yi may jaay loolu rek boo ko calculer rek te pare gu ñu sànc sax ak chaque jour li ngay jox tailleur yi wëñ yi ngay jënd ak pëpëliñ yeeg yooyu ak ataaya beeg yooyu gan yi ñëw ni nga leen tere lépp danga koy bind après dangay xool mais lépp rek man maa ngi rootee ci ci ci keppaaru Baye Modou kan kuy Baye Modou Kane. téer bu mag bi nekk Cambérène 2 lépp rek ci keppaaram laa ko rootee parce que bu ko neexoon moom bi ma ne ko wooy bàyyi bàyyi papa di nee na naa ubbi atelier dana ma defal di nga ci gis résultat mu nekk nit ku ki ñaan bërki dem daf ma woo ma foo toll defeel nii defeel nii defeel nii nit ku ñàkk ki ñaan du la wax loolu te bu la ñawalee rek nga xam ne ñawal na la ci keppaaram laa roote Baye Modou Kane ñu koy gërëm bu baax chéri jaara mm-hmm. keneen ki ci des mooy Oumou Sow bi ma ko ne umu damaa bëgg a def atelier dana ma ubbil day dox de umu saw barke Seexu Xadim ubbil day dox di nga ci am ndam de ni ma man boo jaaxlee ci yenn dagg yi sax woo ma ma jox la création xam nga bu ko neexoon moom tamit du ko ci fekk ndax moom tamit ci loolu lay yëngu daf ma ci yàgg topp moom tamit yàgg na ma ci topp ay ati ati at mais yàlla nga koy soog dogal nañ ñaan rek mënuñu nag yàlla rek moo mën nañ ñaan yàlla mottali lépp ci bark Cheikhul Khadim. tey non mosuma jàng tailleur mais nag damay créer sama bopp nag man damay tëdd rek ni tey sama jaser sama jasneer bi wala sama vax bi lii laa ko bëgg a ñëw Baye Modou ñëwaloon na ma benn taybaas boo xamante ni dañ ma invité woon Sen TV taybaasu vax la mais maa ko ni defal ma ko taybaas ak tubéy maa ko xalaate noonu ak euh, musóori ivoirien pourtant dafa ma ko ñawal mu jàll mu ñawalaat ko ñu bari waaw day xalaat la rek waa du question du du question mën ñaw mën nga waaw mën nga bañ bañ a mën ñaw mais su fekkee comme que da ngay sol dara nit ñi gis ko bëgg ko waaw man damay sol dara nit gis ko bëgg ko ma boole ko ki ko ñaw wala ma jaay ko sam bos man sol naa fi benn vax Xaadim Diouf moom ma ko ñawaloon maa ngi jënd woon vax bi 6000 francs dem euh, Danemark muy euh, seen euh, julaay foo boobu Gambien yi di def sama yaay aji savane yóbbu woon ma fa ma dem Assane Assane Mbuub moo ko doon way mais maa ngi sol benn bijoutier ak benn tubayu caaya ak musóor ma gis nit gis ko bëgg ko boo ko calculer li ma ko jaayee ci xaalis 300000 mille mbubb yére bi yére al barki sañ Fallou ma simmi ko ma simmi ko dama ànd ak moom bi soirée bi jeexee ba ci kër gi ma dal simmi yére bi wàcc jox ko ko mu jox ma sama xaalis solo loolu am na solo léegi téer yi nga yor fii noo leen di nu ngeen di liggéey journée nga leen di fay wala weer wala naka la mbir yi demee. non loolu moom papa moo ko géré parce que man xam nga ay góor lañ ñoom ay góor lañ benn jigéen nekkagul ci place bi ay góor rek a fi nekk waaw comme comme moom mooy mooy sama kilifa moom mooy géré wàllu woowu. ñoom nag samay rakk lañ samay xarit lañ Ibou Sène a ngi fi Tafa mu ngi fi Amma mu ngi fi sëñ Mbacke mu ngi fi ah Assane Assane Bigue mu ngi fi. donc jàpp ci liggéey bi ñoom ñëpp gisoo ñoom ñëpp ay t-shirt laa leen defal nga xamante ni mooy wane ni atelier bi daal incha allah defuñu ko defuñu ko fenn nag ci biir banlieue bi ñu dëkk nga xamante ni fii lañ juddoo fii lañ màggee fii lañ suñu borom booleeg suñu borom kër ñu nekk fi ak moom donc fii lañ koy ubbi parce que ñu bari dañ naa ma lu tax ubbi woo ko ailleurs man leen man fii ma dëkk laa koy ubbi fii may sëy laa koy ubbi donc fii laa ko ubbi te ñëpp xaj nañ ci dama bëgg rek bu kenn yaakaar ni atelier Ndeye Gueye rek dafay metti non du metti ku ñëw dañuy bokk ak lépp ku ñëw ñu partagé lépp waaw. léegi su ma ñëwee yow ci showbiz bi Ndeye Gueye fan yi gis nañ CD yi génn na rawatina ku mel ni Wally Seck jël na woy Youssou Ndour sa loolu la la laaj way bi ñuy wax. nu mu ko waxee te sax fàtte naa woy ba Wally Seck daal jël na morceau Youssou Ndour way ko Sidi Diop def na loolu mais tey ñoom ñooñ di ay xale ñëw di roy mag ñooñu loo ci gis. Euh, maa ngi woo ñëpp ah le 18. le 19 fële ca Gambia bu ko kenn rate man Ndeye Gueye maa ngi ci biir maa ngi woo ñëpp le 18 le 19 foofu laa mën a yem ak yow. maanaam kon mbir moom waa am na solo loolu day lu leer naa ñi la ndax. lu déet fooy woote. Wally Seck Gambia. ngeen. le 19 février na ñëpp waaj bu kenn des Sénégal ñëppay takku dem. ñëppay takku dem wax di jeex mu daal di jeex. yéen Sénégal am corona ngeen di fi bàyyi nit ñi di dem Gambie loolu est-ce que tamit xel nangu na ko. waa mais mais Gambie Gambie Gambie xëy na ñoom ñoo organiser rek waaw ñu wooñu rek ñu war a mën a dem rek loolu dara nekku ci. léegi dem Gambie kon su ma la déggee. soobee yàlla bu ma yàlla mayee gudd fan ak wér ak jàmm ak salaam rek dinaa dem bu soobee yàlla. ma laaj la benn affaire Balla Gaye 2 yéen a dëkk Géejawaay macha allah dem na ziar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ànd ak Abdou Aziz Ndiaye ba ñëw am ñoo xam ne dafa war a bàyyi bëri ñu ne waru koo bàyyi yow loo koy xelal. Euh, waa mais Balla Gaye bu ñu ko bàyyi loo bari lan la ñuy dundalee njabootam hmm? Balla Gaye demul demul demul kii dafa aj dafa kii woon umra waaw donc mën na ko ci li ma yaakaar damay yaakaar dama yaakaar parce que man xaw ma ci lu bari donc bu tey bu ñu ko bàyyiloo métier am kan moo koy kan moo koy dimbali tey am na tey ñu yaakaar ci moom Balla Gaye ñu yaakaar ñu wéeru ci ginnaawam dafa bari du dëgg donc bu bàyyee làmb ci lan lay jàpp ci lan lay jàpp waaw man mënuma ci sori parce que xaw ma ci bu baax. ana Omar gëj nga woo gi. Balla Gaye maa ngi ko doon bëgg a woo sax pour wax ko mu ñëw xool si place bi def ci ñaan. naa ko ko yab nga. Balla Gaye 2 séeri buri bàcc li bàyyi Mouhamed bàyyi princesse damaa bëgg nga ñëw ñëw fii ci place bi def fi ay ñaan comme que yow gaynde génn géej a way barke borom Tuubaa sama waa ji kenn du yow ba ma jàppee ba tey bawoo. ana liiru jaan moom moom defe naa yéen a bokk. est-ce que moom demul États-Unis ah kooku liiru jaan borom baax la liiru sama xarit la de mm. kooku sama frère la de man ñëpp samay xarit lañ man yàlla dafa dogal nii dama dama nekk jabaru mbër ba pare ñëpp nekk samay xarit waaw ba dama fàtte tamit Badara Mbaye tamit ci ci atelier bi la bokk rakku Cheikh Diop Mbaye waaw muy nuyu tamit euh, euh, borom naa TV war nga ko xam Silla nit ku baax le futur maire de yoof ah nit ku baax barke arxuraan bëgg naa nga wax ak moom da lay woo teral la waxal ak moom fi ah, Silla yow jël ma Silla borom naa TV séeri nabu le futur maire da Yoff waxal ak man defal yëfu Cristiano Ronaldo rek wala Messi pass muy gaaw mais gis nga àdduna dafa doy waar gis nga nit bu nit ñi de xëccu alal bu fexe la xëccu nit ñi c'est très important man bëgguma nit kuy xeebaate te dafa am nit boo xam ne dama koo xam dafa mel noonu muy Mame booy Diao ñëpp la mën defal ñëpp la mën a defal parce que xeebul kenn moo ma yàkkal Cheikh Ba Messi Cheikh Ba Messi juróomi at tey laa koy soog a teg bët tey jii laa koy soog a teg bët moom moo dafa oyof sax ba dama naan dama ne kii du nit parce que yenn yi maanaam maanaam baax yooyu amatul yenn baax yi amatul senegal da ngay gis ni day am alal mais day xeeb tey ndeygéey mi nga xamante ne amul dara te man ku ma xeeb ma xeeb la man noonu laa mel man su ma la gisee benn yoon rek war naa xam su ma la gisaatee nan laa war a comporté woo ak yow mais man nag boo ma boo ma jiyee mbaax rek yaa ma moom kii loolu nattu boobu moo ma dal ci moom ngor gi ma ji moo tax xaw ma nan laa koy def. papa moom moo xul papa man kan laay waxal. keneen kan laay waxal 10 minutes yaa ngi bëgg ëpp de. papa 10 minutes yëppul <laughs> ah. Equivox de am ngeen client moom di ngeen dox par force ah maa ngi nuyu nag aussi Equivox euh, bu dee Babacar fa la nekk rek non di ngeen toj dëkk bi barke yonent bi may nuyu euh, sama goro bi ba ak euh, Buri Diop sama njëkke bi toog sama beneen njëkke bee toog ne taxaw ne ah ma leen nuyu bu baax a baax a baax Equivox nag yéen a jël baabakar léegi su ma la bëggee yóbbu Africa rek nag. Africa rek. waa maa ngi Africa di. non Africa rek ci sama ci sama sud bi man. non man doo ma jëlee Europe di ma yóbbu Afrique day xaw a miti bàyyi ma toog fee rek. <laughs> fee daa am neste fee dafa bëriw tàngo <laughs> waaw mais kontaan nañu waa ah, di nuyu ñëpp. ma nuyu waa Africa ah, guy 95 ak yow parce que liggéey bi nice na macha allah di nuyu tamit ki ko moom. wax dëgg yàlla xaw ma turam mais maa ngi koy béggee laay nekk italien ah. waaw yàlla na yàlla def Africa tamit yegg fii site yëpp yegg ci wàllum média barki yonent bi sallallahu parce que tamit li am solo mooy am am mission liggéey rek daal loolu moo am solo. waaw waaw léegi da ngay ci biir xaw ma buri maa ngi lay bege <laughs> maa ngi nii maa ngi ci jaam kii du buru séeri baro wala du moom. déedéet ki da lay tooñ rek bara sama càmmiñ la. Ah. waaw léegi ndey li mu ubbi loo ci gis yow. yàlla daf ñoo boole moom mi nit ku baax lu mu am rek sens du sens mérite la. xanaa di ko ñaanal rek lim ci bëgg yàlla ko suñu borom yombale ci barke Seydina Mohamed. ndéegee sama goro la papa sama doom la ndax ma yaayam bokk ndey ak baay waaw. tey li mu def nii noo ko gisee. baax rek jigéen day liggéey góor day liggéey baax rek nit moom loo dimbalee sa jëkkër yàlla fay la ko te moom dafa jàppale papa waaw dafa jàppale papa jàppale ñun ay mbokki papa. Ah, maa ngi lay bëggee. salaamaaleykum. wa rahmatulah. هاي أياليانا مرة زينة مرة متعدلة أنا معني فيغانية كورية خير نعرفها سما جبر ju baax ju bëgg sama càmmiñ yàlla may ko lii ko may jombu ko nag jombu ko de ndax nit ku baax la nit ku am talent la nit ku fonk boppam kon lu mu yóotu rek war na kaa mën a jot te incha allahu rabbi da ko jot ndax suñ fàlloo wér biram ku baax la ndéygee man li ma gën a neex si moom mooy dafa oyof boo ñëwee si kër gi day kaf ak yow reew ak yow wax dëgg yàlla amul benn problème ñu ngi koy ñaanal rek yàlla na eggali sagoom. mel ni kii moom ah euh, mook Ndeye Gueye wala boog moom moo koy jàppale kilifa gi tur bi la. man maa ngi tudd Aline Badara Mbaye. la bokk ak Cheikh Diop Mbaye. ñoo bokk ndey ak Baye. ndeysaan am na solo ñu koy nuyu di ko ziar Cheikh Diop Mbaye euh, tey Ndeye yi defe naa lu mel ni def na ko te defe naa bi ñu ko laaj ne na yow la ci àndal nga di ko ci jàppale di ko ci xelal en tant que càmmiñam waaw xam nga nday day nit koo xam ne dafa gore te baax lool doon jëmm joo xam ne lu mu am bokk na ko nit ñi ndey sama diggante maa ngi leen àndi sëñ Tuubaa la ñu àndee nday balaa am jàmm bu tukkee bu ñëwee balaa am jàmm li mu yore dana tàntal sëñ Tuubaa ba pare xolam soo sedd te rawatina bi mu taxawee barab bii ngir di fi nekk ngir di daan dooleem lépp ngir dimbali waayu juróom rek amul kenn ku ko ñor yaayam rek ko ñor ak jëkkëram ak ñim bokkal waaye jëmm la joo xam ni euh, aw mag payam ndax jàppale na ma ci lu ne ba noppi jël ma taf ma ci boppam nday lu muy xalaat lu ne sax dina moo ci woon ne ma nii loo ci xam lii loo ci xam loolu nag ku la ko def deseelul dara waaye muy jëmm ju baax jëmm ju am ngor ju gore jëmm ju tiitut ju rafut gu dal te bëggewut te muy nit ku baax waaye ñi ko yàlla booleel yàllaa def mu mu bëgg leen waaye ñooñu tamit bëgg ko fii mu taxawal day ni ñaan ci barkib sëñ Fallu mi nga xam ni moom la yaakaar sunu borom sotti ko fi xéewal yu baawaan ba lim ci bëgg lépp sunu borom fekk si ko ndax jëmm ju baax la. Cheikh Diop Mbaye li mu def mën nga ci dara. no seex moom mënu ma ci dara ndax moom kooku jëmm la joo xam ni. yow jéemal ma ci dara ci li Cheikh di wax. li Cheikh si déggoo li la seex ne la joo xam ne yàllaa ko pakate rek teg fii moom kooku laa ilaaha sëñ bi. waaye man tuuti. man déggoo li ma la man mënu ci dara. non damaa cof rek. alax man déggoo li ma la man. xool ci sëñ Fall. alaaji Fallu baax borom ni ndeeg saam yabal. bàyyi alaaji baara sunu xalifa bani joo. waay yawaay sëriñ Seexu mi mais sëñ Fallou baax